Euh, mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo seetaan Senego TV senego point com tey nag ñoo ngi fii ci New York nekk le 9 novembre tey ñu war a am entretien exclusif ak monsieur Ousmane Tounkara di activiste bokk ci membre PASTEF New York. well not really membre mais sympathisant. sympathisant voilà. monsieur Ousmane Tounkara fi ñu koy commencé mooy PASTEF gis nañ jamono ji problème bi am biir PASTEF ñu baree ngi naan ex PASTEF euh, situation bi ngeen toll ci politique yéen yéen ñi féetee New York yan lan mooy seen. Euh, ci yenn tànk ngeen nekk gannaaw parti bi bañ ko bañ ko bañ ko well ah, Seydina maa ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax mhm. di nuyu auditeur u Sénégal yëpp ak euh, ñëpp ñi lay seetaan à travers ACTV fépp foo mën a nekk ci àdduna bi mhm. donc voilà euh, côté politique bi je pense que administrativement loolu bureau Pastef ñoom ñoo ko gérer mais ñun par exemple comme ay sympathisants wala partisans yi nga xam ne ñun ñoo nekk ci dëkk bi ñun activités yi ñu toppoon rek ñu ngi ko topp ba léegi ndax euh, diw nee na da nga nekk sa sa sa noon mënu laa mënul nekk juge pour yow donc falaa ko jàpp donc pour man euh, ma Macky Sall n'est pas bien placé pour mën a wala pour mën a pour mën a dajale Pastef euh, parce que déjà mënuloo nekk sama adversaire ba pare war a nekk juge amul sens donc je pense que loolu bépp nit bu ànd ak xelam rek bu ko xoolee da ngay continuer jàpp rek ne Pastef est temporairement dissous verbalement xaw ma ndax loolu defe naa leer na mooy maanaam Pastef tas nañ ko eh, ci ay kàllaama comme na gars yi tasee woon parti Nelson Mandela ak yeneen parti yi nga xam ne yëpp gis nañu mujjanteel ga donc je pense que loolu du débat pour man pour man débat réel bi vraiment mooy actualité bi nga xam ne moom moo xew actualité politique bi xew suñu dëkk suñu xarit yi naan daan ne toujours euh, force reste à la loi force euh, euh, reste au juge comme niñ koy waxee ñëpp dañ leen war a juger donc je pense que juge bi àtte na te sama mbokk yi nekkoon force à la force à la loi waxatuñu donc euh, j'espère bien que xëy na fi mu toll nii léegi ñoom dootuñu jëlati benn kuuru àtte dañuy topp rek ci seen ay réalité donc je pense que ci côté politique bi moom foofu laa mën a yem. Euh, lu toll ci vingt jours ci ginnaaw gis nañ président Macky Sall ñëwoon na fii. ci mm-hmm. General Assembly bi am Nations Unies. <coughs> Euh, côté communication yéen activistes yu nekkee New York fan ngeen jëlee financement boobu pour saboter. Euh, lépp lu président Macky Sall doon amal fii. mais mais est-ce que sabotage la boo wanee li nit def kay. bu fekkee lu baax la wala lu bizarre la loolu da nga wane ay jëfam rek pour man ci sa communication ci côté digital bi côté bépp da ngeen ko baaree da ngeen fàttu fépp wel voilà xam nga Seydina je pense que bu fekkee bàyyi nga ñu xel on avait bien averti à l'avance ne woon nañu Macky Sall la euh, lii nekk li xew Sénégal jaru ko te mënoon naa ñàkk te bu bëggul li xewoon fii xew mënoon naa résoudre problème mu Sénégal boobu vraiment ci ni mu gën a rafetee bàyyi ku nekk ñibbi këram si ñi nga xam ne maanaam dañ leen toppee yu dul naka si dul noonu ndax ñu bari ci ñoom léegi ñu ngi leen di bàyyi ñuy ñibbi benn benn saa yu leen neexee. donc ñun loolu lañ doon laaj et bu fii bu loolu amul nous on allait réagir. parce que bu fekkee suñu mbokk yi Sénégal mënuñoo marche mënuñoo wax donc buñ ñu fekkee fii ñun dinañ wax donc côté financement je pense que c'était c'était pas grand chose mais mais luy ay écran muy wër ci Manhattan c'était pas c'était pas euh, grand chose yeeg force de l'ordre ñi abattu nit ñi di leen rey waaw est aussi euh, fan ngeen jëlee stratégie boobu pour def communication da ngay gis sax policier bu taxaw gis image yi yuuxut fatt euh, bëtam yi ne waaw image yi dafa day waar stratégie bi moom je pense que lu ñu yàgg travailler la ndax ñu ñi ñu xam bu fekkee yaa ñuy bàyyi xel di nga gis ne ay at ci ginnaaw dama yoroon benn oto boo xam ne dañ ci taf ay photo Macky Sall. ne dictateur. def ci croix. mais mm-hmm. ay photo mm-hmm. léegi nag ginnaaw loolu bu mu amee. Mm-hmm. comme loolu defoon na effet. moom Macky dafa mujjee def lépp lu mu man pour contrer loolu parce que ni mu ko defee mooy dafa jënd ay aad maanaam dem ci ay mbir yu bari pour ñu defaral ko turam. donc ñun mu leer ñu ne. xam nga nit da ngay xool ay action am rek yow tamit nga mën a def réaction. donc nous on a compris que image am. daf ko jaral lu rëy ci réew mi comme jaral na ko loolu nag donc ñu nit ñu jël image boobu ñu xeex ko donc loolu rek la woon te loolu Seydina ba léegi xam nga maa ngi koy wax di sourire ñu bari duñ ko comprendre loolu lancement la woon par rapport ak li nga xam ne ñu ngi ko dëgmal ci mbiram man bu ma doon moom ak mbir mi fi mu toll fi mu toll nii et c'est jamais trop tard vraiment war naa mën a dellu ginnaaw bàyyi politique yu sénégalaise bi tranquillement comme moom nee na dootul nekkati candidat mais su continuer ci tànk yi mu nekk dinañu yegg foo xam ne Seydina yéen ci seen ñun sénégalais ci boppam ñun ñooy ñëw mere suñu bopp parce que li Macky nekk di def nii kenn approuvé wu ko fenn ci àddina du Sénégal du bitim réew du fenn ndax wax dëgg yàlla mënuñoo dëkk ci démocratie yow nga bokk ci dëkk boobu man ma bokk ci yow Seydina mii sax waroon ngaa mën a déposer candidature Sénégal te dara du la ci fekk donc pour man xam nga côté finance moom war na ñoo xam ne duñ ci am doole ndax boo xoolee barki démb rek. Pastef Italie. ils ont euh, euh, dajale nañu cent millions. ci benn jour. te Pastef Amérique ñu ngi waaj a def même chose. ñële bu ñu defee cent ñun deux cent millions la ñu bëgg a def. donc financement bi côté financement bi mooy problème bi gën a tuuti. ci côté li ñuy def moom mais xam nga dafa gënoon rek. pour man Sénégal ñu mën koo defar. Mm-hmm. te du nekk benn haine. te du am benn jafe-jafe maanaam ñu defar ko rek te mu rafet ci sama xalaat bu gàtt. d'accord jamono jooju lu toll ci ñaari weer a ngi nii avant loolu ñu tëj service consulaire bu doxatul ni ñi mënuñu jot seen ID xam nga ne fii chaque mu ngi recevoir ay gan yu jógee jaare yoonu Guatemala wala Nicaragua ñëw fii am problème mu passeport ndax euh, affaire yi yéexul ñii ne gars yi ñoo ko doon saboté far yàlla ñoom tamit ñu gën ci profito. Mm-hmm. Euh, naka ngay analyser ni ñu tëjee. Euh, consulaire bi service bi doxatul mënoo am passeport mënoo am voilà voilà donc loolu Seydina euh, <laughs> tàppale la xam nga euh, même problème bi ñuy wax ci consulat bi mhm. du moom la ñu wax ci université Dakar du moom la ñu wax ci bànqaas yi àdduna bi yëpp yi nga xam ne nee nañu ay doomu aadama ñoo fa demoon attaqué donc kon Sénégal dootul dox donc dañuy tëj Sénégal dañuy bàyyi Sénégal lépp du dox mhm. Seydina Sénégal ñoo war a jël seen responsabilité bàyyi benn Samba yi taxaw ci diggu dëkk bi xam nga Amérique nit yu bëggul seen réew ñu dul patriote ñooñu dañ leen di toppee ay haute trahison gis nga Macky Sall sénégalais yi ñoo war a jël seen responsabilité mënuloo jël président nga jox ko mu yoral la sa réew nga koy bàyyi muy jël institution réew yooyu yëpp di ko salfaañe xam nga li mu nekk di def fii lii lan lay coûter sénégalais mais Sénégal dina dellu ginnaaw une cinquantaine d'années parce que lii déjà imaginez ñu jàpp booy yii fi nekk nii yëpp amuñu kayit bis bu ñu ubbee consulat bi rang bi dina nekk cinq cent mille personnes booy yi soxla kayit y cinq cent mille sénégalais sur la rue loolu jar loolu lu ko jar ci ay tappale te pourtant gars yi dem nañ fa waaye saccage bi gars yi tuuti la ñu saccagé ni ñoom ci seen bopp ñu daal di ñëw profito dem dugg ci ruqu-ruqaan yi jéem a jaxase carte gi loolu yëpp ay tappale la xam nga yooyu ñun gisoon nañ ko fi li nit ñi xamul mooy suñu kilifa gu mag gi mag yi bis bi muy bi muy ñëw ci réew mi dafa am misaal yu mu daan jël mooy misaalu firawna firawna façon tappale sabotage bu ne def na ko Égypte mujjantalam ñun ñëpp gis nañ ko donc ñun dañuy ñaan ba léegi ci njëkk ak teraanga nag comme ni mu koy waxee mu ne nañ ko ñaan ci njëkk ak teraanga Macky delloo la ngay bàyyi doomu sénégalais yi muy xoqotal parce que san ne ra plus loolu mënatul yàlla Seydina bi ma dugg see léegi rek maa ngi la koy wax homeland security léegi ñoo ñuy woo di ñu laaj ay question ci Sénégal imagine loolu ñu ne ma mais yow gis nañu ngay kaas ngay kaas ngay kaas léegi ñu ngi bëgg a comprendre li nga doon kaas di ma laaj ay question di ma tuddal ay turu autorité sénégalais kii lu muy liggéey kii ban position la am kii lu muy def kii ban position yooyu ça devient dangereux réew bu yeggee ci situation yooyu vraiment yegg na ci situation yoo xam ne Seydina jar naa xoolaat parce que Macky Sall dina dem mais woy ba muy bàyyil Sénégal ñun boobu moo ñu gën a intéressé est-ce que yow bëgg nga tey di dox ci mbedd gars yi seen la rek nga ne asalaamaaleykum rek ñëpp daw est-ce que gis nga li dal pakistanais yi léegi ak li dal yenn saudi arabien yi bu ñu duggee ci yenn endroit yi bu ñu nee salaamaaleykum rek ñëpp gestu gis leen daw effectivement léegi nag dinañu dem ba Sénégal dinañu boole ci tur yooyu terrorisme biñ koy wax mhm. dafa am ay nit ay fanatique yoo xam ne dañuy jóge ci yeneen réew mere yeneen réew dem fa di taal c'est ça waaye ana doomu sénégalais ak xeex ak sénégalais sànni euh, kii sànni la grenade lacrymogène yow nga sànni ko cocktail molotov ay terrorisme mais arrêtez avec ça voilà ci loolu gis nañ mu am benn